nekk inspecteur de l'éducation et de la formation bu Mbacké donc euh, tey ji lañu tàmbali euh, brevet donc defin de fin de moyennes muy BFEM euh, fii ci Mbacké am nañu ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari candidat yoo xam ne ñooy composé ci candidat yooyu ñaari junni ak fanweer ak juróom-ñeent bi ay jigéen lañu donc booy xool ci téeméer boo jël donc am na daanaka juróom-benn fukk yoo xam ne ay jigéen lañ donc mu nekk lim boo xam ne aussi am na solo wala ne fii donc njàngu jigéen ñi quand même mi ngi gën a jëm kanam comme ni ñu ko wane woon e euh, lii nga xam ne am nañ ko da koy gën a dëgëral donc ñu nekk ci liggéey boobu di ci gën a bay suñu waar ba nga xam ne daañu fexe ba jigéen ñi nga xam ne war nañu jàng ñu mën a jàng donc boo jëlee candidat yooyu nag euh, ñoo ngi leen tas ci fukki centre ak juróom donc fii ci Mbàkke am nañ fi fukki centre ak ñaar Euh, Touba am nañ fa benn centre ci arrondissement Taïf am nañ fa ñaari centre donc ci fukki centre juróom yooyu am na ci trois centres mixtes maanaam centre mixte yi mooy centre yoo xam ni ay élèves franco arabe ñoo ci nekk donc tey ci suba gi euh, avec euh, monsieur le préfet ak suñu délégation ànd ak syndicat yi ak partenaires éducation yi jot nañu dem xooli juróomi centre ci dëkk bi fexe nañu aussi jokkook président jury yi nekk yàlla bi mais lu ñuy xayma mooy fii ci Mbàkke wax dëgg yàlla benn jafe-jafe nemmeekuñ ko fi donc euh, amuñu benn jafe-jafe donc lépp daal mi ngi jaar ci yoon donc euh, épreuve yi démarré nañ huit heures de sécurité ñoo fa di garder surveillant yëpp ñëw nañu aussi di surveiller secrétaire euh, correcteurs yi aussi disponible nañu donc pour wax ni wax dëgg yàlla nemmeeku guñ naa benn jafe donc lépp daal jaar na yoon voilà amul benn jafe-jafe bu ñuy signalé ñu ñaan yàlla loolu mën a continuer ba fii muy muy mën a jeex. te loolu tamit bu amee dama naan xëy na liggéey bu ñu njëkk def ci kanam la tamit parce que ci kanam am na liggéey bu am solo bu ñu jot def. noo mm, ce yombul woon. Mm. parce que ren xam nga lu ci bees mooy. Mm. Euh, bu yàgg euh, inspecteur d'académie maanaam euh, suñu inspecteur bu nekk Diourbel inspection bi ñoom ñoo doon tànn ñi nga xam ne ñooy président de jury tànn ñi nga xam ne ñooy correcteur yi ren dafa am soppeeku bu ci am. mooy ne ren dañu ni inspection bu nekk na nga tànn say président de jury tànn ñu war a corriger tànn ñu war a surveiller donc mu nekkoon liggéey bu xaw a diis tuuti mais quand dañ ciy féliciter di ci remercier inspecteur d'académie ci gis-gis boobu parce que day wane ni euh, jox na quand même qualité euh, inspecteur de l'éducation et de la formation yi donc loolu sas la bu rëy rëy boo xam ni fexe nañu daal pour mu nekk loo xam ni tamit euh, daañ ko jëmmal ba nga xam ni day nekk loo xam ni dana réussir mm. donc ci kaw loolu jot nañoo daje ak président jury mm. waxtaan ak ci matuwaay yu ñu war a jël yëpp parce que xam nga BFM dafa xaw a doy waar surtout suñu ak bac ñoo yem parce que dañuy gis nii li ci gën a bëri mm-hmm. da ci am ñoo xam ne xëy na dañu ciy def naka su dul noonu suñuy wax ci wàllu tubaab wala kii mm-hmm. ñooy genre tricherie yi comme ni ñu waxee genre mm-hmm. njublang daal pour am loolu nag jël nañ ci matuwaay pour mu bañ a am fexe nañu ba wax ni président jury nañ gën a ñaax surveillant yi ci seen salle ñu mën a surveiller bu baax ba nga xam ne xale yu def yi daañu mën a def ci anam yu leer ba nga xam ne lépp luñ ci am day dëppook voilà ak seen xam-xam mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu surtout moo gën a am solo mm-hmm. donc loolu yaakaar naa incha allah yàlla danañ ci taxawal ba nga xam ne du loolu lépp ab ay jumtuwaay yu am waxee rek voilà matuwaay ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo war a surveiller parce que téléphone yooyu yëpp dañu ne nañ ko nañ ko dindi bañ ko bañ ko utiliser mais aussi surveillant yi nekk ci biir classe yi di surveiller def seen liggéey nu mu waree donc loolu mu ko defee yaakaar naa ni quand yooyu daañ ko mën a moytu te comme ni ma ko waxee aussi du xaar rek ba examen ñëw ñu def ko donc ci école dañuy tàggat xale yi ci loolu. parce que loolu tamit euh, dafa am solo. réussir ci loo xam ni dëppoowul ak yoon. amul njëriñ soo ko tàmmee. da lay topp sa giir dund daanaka maanaam mooy vie de tricherie am loolu amul solo. donc loolu tamit dañu ne nañ ko régler à temps. donc euh, même ci biir jàngale bi nañ ci insister. allah mm. daañu ci taxaw ba lépp li nga xam ne daal. Mm. Euh, day na a gàllankoor examen ñu dindi ko. donc am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax mm. incha allah.